partenaires yu sénégalais ci lu jëm ci wàllum finance nañu wax réewum sénégal ngir nag lépp loo xam ne mën na ko ngir nag daal di apaiser climat nga xam ne dafa daal di yëngoo ak tension politique bi loolee partenaires financiers yi wax nañu ko nguurug sénégal na li nga xam ne mooy stabilité politique bi maanaam politique bi daal di ànd ko dal loolee la ñu sant état bu sénégal partenaires yu sénégal yémuñu rek ci wax leen ngir ñu daal di mbir yi waaye tamit wax na ñi nga Sénégal laaju ñu ko rek maanaam rapport fond covid 19 bi waaye tamit laaj nañu ko rapport cour des comptes bu ak bu 2020 2021 loolu lépp partenaire yi ak partenaire financier yu Sénégal daat nañ leen koy laaj journal bi de Le Soleil nee premier ministre bi di Amadou Ba situation politique bi daat nay dalal xelu partenaire technique yi ak partenaire financier yi journal bi di Direct News xëy duñu xibaar nañu général Mbaye Cissé mi nga xam ne moom la ñu tabb yéene yu ñu war a xam ci moom la ma ngi ci journal bi di Direct News journal bi di bés xëy duñu xibaar naan ñu jigéen ñi nga xam ne bokk ci parti Rewmi bu Idrissa Seck ñoo ngi woon ca palais ba idi ci boppam moo leen yóbbu waaye délégation boobee Yankhoba Diattara nekku sa yéene kaay gi di enquête ñu xëy fekk fa maître Seyid Larifo moom nag daan nay wax ne lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat loolee saaga la jëmale ko ci di Sud Quotidien nee na présidentielle 2024 jamono ji dafa ci yooyu la élection ndax lu jëm ci wàllum parrainage bi dina am ñoo xam ne loole moo leen di gàllankoor am na ci candidature yoo xam ne lu jëm ci wàllum yoon moo leen dana gàllankoor ku ci mel ni Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ak Ousmane Sonko mi nga xam ne ay mbiram dara léeru gu ci journal bi ne na bu passé loole tamit Macky Sall mi nga xam ne ñu bari nee na ñu wóor te def benn mandat gars yi di ko surveiller comme du lait sur le feu bi nee na nga xam ne daal ñooy ay kàngam dëgg ci lu jëm ci wàllum politique ci Sénégal ba kenn xamul seeni mbir fan la nar a mujj ci élection yi nga xam ne moom la ñu fukki weer rek moo ci des journal bi de Le Point xëy duñu xibaar naan ñu Ismaïla Madior Fall ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi moom nag daat nay wax justice su Sénégal la ci àdduna bi ndax suñuy texte bëri ay réew yoo xam ne ñoo ngi ko copier di ko jëfandikoo ci wàllum yoon journal bi di bés bi dikk ci ñol-ñol yi nga xam ne moo amoon ci nappkat yi dëkk Kayaar ak nappkat yi dëkk Mboro journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy ay nappkat dëkk Kayaar te ci mbir mi ñenn si ñoom ñoo ngi nettali li nga xam ne moom la mbir mi demee waaye am na si ñoo xam ne seeni bu ñu demee ba mu yàgg ñu ne leen am na ñeneen ñoo xam ne faatu nañu bu mu leen bett surnal bi nee na am na lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti ndaw kayaar yoo xam ne yóbbu nañu leen ci kaso bi journal bi de la Tribune nee na ñi nga xam ne ñooy nappkat yi dëkk Mboro jamono ji maanaam organiser nañu bëccëg boo xam ne ay ñaan lañ ci amale ngir nag jàmm mën a dellu si yéen kaay gi di Direct News xëy nag di fàttaliku Mariama Ba mi nga xam ne moo bind roma bu siiw bi tuddee ko indi si longue lettre journal bi nee na xalimaam la yoro maanaam di servir li nga xam ne mooy réewam maanaam communauté am journal bi nee na jëm ci wàllum éducation Mariama Ba amoon na ci taxawaay bu am solo ak di xeexal jigéen ñi seen àq ak seen yelleef indi si longue lettre mooy roman bi nga xam ne moom la njëkk a bind mu siiw loolu daal di am succès yéen kaay gi nee na Mariama Ba cancer moo ko yóbbu avant ñaareelu roman bi di génn ñaareelu roman bi jot na ko bind waaye avant muy génn la moom Mariama Ba génn àdduna un champ écarlate la ko tuddee journal bi nee na la mu say nettali mooy échec boo xam ne am na ci benn mariage bu dox diggante ab sénégalais ak française yéen gi du sunu làmb xëy